war nañ koo mën a tegaat ndax it am na njëriñ bu a dina dikkaat gis seen bopp bu baax a baax ci li nga xamante ne moom la ñuy ñu bàyyi leneen te wax naka xeex bi nga xamante mu ngi koy xeex ci wàlluma trafic de bois Sud Quotidien yéenekaay bi ci la xëy fasal nee na ba léegi naka moo ngi ci mbir moomee yéenekaay bi ne ay initiative yu bëri naka jotees nañ koo jël la ko dalee ci Senghor ba ci Diomaye Faye mi falu ni ki démb waaye naka mbir mu ñu jël naka dafay dal dee na sax te nag moo tuddee moo di naka gaaña au lieu sànni jàmbar ñoom naka ka sànni ba mu tot tot nag moo di Air Sénégal Air Sénégal bi nga xamante moom lañ jàpp ne moo leen teg coono bi ñu nekkee ndax mu amal ay retard yoo xam tax na ba seenu ujaaj googee naka am bari loolu ay jafe-jafe ak i coonom kenn ci rituel yoo xamante ni war nañ ko fa droit def waaye naka ñoom dañoo jël seeni xeer yooyu sànni ko Air Sénégal ndax jàpp nañ fi la mu waroon a accomplir yëpp deful si dara naka ay caaxaan yi képp nag la dee def ba seen voyage googee naka mujjee métti lool métti boo xamante si kenn mu ne am na ko naka dañ ko dal dee lañ ca jublu rek moo di fexe rek ba taskatu xibaar yi ñun leen naka xoj leen ba dootu mun nooy loolee nag la nguur gi fi ne naka bëgg da tax kon ba de presse yi naka fintoon en réunion d'urgence la ñu amal bëgg nañoo woote ndax jàpp nañ naka nguur gi fi ne naka fa ñu jëm ak ñoom naka ñax du ko ak léegi naka ñu ngi ab ndaje boo xamante si daanu waxtaane xool nees war a def rek ba ak nguur gi fi ne ndax itam la mu bëgg bés bu sottee naka kenn dootu fi yëkkati sa micro di wax loolu moom du mën a ne léegi ko yéeni kaay di quartier assise nationale naka jëm ci justice boobu ñu dal dee amal présence président au conseil supérieur magistrature ab pomme de discorde maanaam féewaloo dëgg nag daal dina si am ay argument ay pour ak contre yéene bi ne ak Diomaye mayu leen grâce grâce bi ñu may nag motu sax fan loolee tax nag yéene bi ne xalaate wute nañ ci gouvernance bi nga xamante moo am ci diggante Ousmane Sonko ak Diomaye am na ci ay ambition ay réforme yoo xam ne tàmbali nañ ko waaye mbir ma ba léegi demagul ay promesse naka ci wàllum électoral yoo xamante ne benn sotteegul de ndax ba ñuy campagne ba ni dafa di ko wax kay mooy fintoon naka drogue bi cocaïne bi nag mu ngi ne cobboy si réew mu ngi wéy gannaaw 30 kilogramme yi nga xamante jàpp nañ ko samedi ci kër ayib duwaan bi nag intercepté na beneen fanweeri kilo ak ñett fa jege ak gànjaay niki démb da seet loolu rek Walfadjri yéen kaay ne fi ñu toll ni Sénégal a baax mu ngi jàpp xëy na naka jox lii dafay wane ne Sénégal am na ab besoin alimenter ab zone ab ñàkk fayda ak wanewu boo xamante ne si dëgg nag mu si application loi boobee loolee tax naka fi ñu si mel ni nag nag sabar gu tas biir Sénégal biir Sénégal ak subvention ci wàllum njëgum courant gi produit pétrolier ak gaz yéenekaay bi na fi toon yi état bi nag na de six cent milliards yoo xamante ne at mu jot nag la koy dal defi loolu moom diis na attanu ko ndax ménage yi tamit ñu ngi taxaw di xaar te buñ dañoo taxaw de en tenaille diggante situation financière ak pression populaire yéenekaay bi ne fi am na exigence yi nga xamante waa FMI Sénégal ak Sadio maane Sadio maane nag ñaari match yu Sénégal yi nga xamante ni ca la ñu jëm du ca bokk la ko waral moo nag dafa am ay gaañu gaañu gannaaw ba mu ñëwee si tanière bi ba tàmbale ay entraînement am ci Sadio Mané ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg